ah kii mooy seeni bu borom Gambie Gambia people borom xaalis yu bëri yaa nekk nii caalaan neex na wala neexul caalaan affaire la affaire la affaire ah. téeréet baax ñu ñu ñu a defaral tey caalaan bi tey waa caalaan a ngi xoolal ñoom nday coor nii lii ñu ko ko wax dee mais lii suba si après ngoon gi boo leen demee bay bay bay organiser ay guitare yi. waaw na nekk. même ak kii kan la. kii mooy bi. waaw kii mooy Mariama moo togg añ bi añ bi. tey noo gisee bisu tey bi. mais démb démb sentir nga lu neex wala. waaw sentir naa lu ah. waaw di ñaan kii kan la. kii mooy borom mention spéciale. Ah, kële kan la. kii ah, jaata Ndiaye. mais instant bi ñoo ngi si waa Mbulum TV nag. Mbulum TV waaw. dëgg kii kan la. kii Jobaas. kan